ne ko yow xam nga ne Paris match amatul mu ne ma ah lan moo am ma ne ko soleil le soleil <laughs> mu ne ko léegi journal bu ñuy wax journal le soleil moo am pour wan la ne moom activité yi sax yoonum newu ci yàlla rek la concentré woon taxul nag mu fàtte àddinaam waaye mu ngi njëkk a tukki li ko jiitu laa war a wax waaye fokk ma indi lii mu ngi njëkk a def premier voyage am libi mooy bi Xadafi wootee wooteem bu rëy boobu pour jiiteel juma ñoom Thierno Mountaga Ahmad ñépp la invité woon sëñ Abdou ñëw al amin ne ko gannaaw nag loolu 98 la ne ko gannaaw yaay xalifa nag tey xalifa Seydina Cheikh foog nga dem mënoo ñàkk dem mu ne ko man duma dem wax wax wax wax mu ne ko duma dem billaahi wal kitaabi yàlla am na ñu may bul xool rek nit ki nii euh, environnement nit ki non Iran Ndaw bi Iran Ndaw moo gën gis Sëriñ kër Si mu wax ko la mu koy wax mu ñëw wax ko Sëriñ Mansour Sëriñ Mansour ne ko comme sëñ kër Si àdduna ci dinaa dem looloo indi dem ak sëñ Mansour libi ci Iran Ndaw mii la jaar dëgg la daaw da wala du dëgg Iran Ndaw bii Ibrahima bajaan Mbóog ñu gën koo xam ci Iran Ndaw bu seen TV ci làmmiñam la jaar ñëw ci sëriñ Mansour mu takk saagam dem ndax moo gënt gis sëriñ Babacar si mu wax ko la mu koy wax ci sëñ Mansour sëñ Mansour ne gannaaw sëriñ Babacar dugal na ci gémmiñam dinaa dem boobu sëñ Mansour amul sa carte d'identité sëñ <laughs> doo ko toppatool carte d'identité toppatool ko euh, passeport ci saa si yépp sëñ Abdou Lamine moo ko toppatoo jox ko mu ànd ak Thierno Mountaga ak délégation bi ñu def dem la gën a yéeme bañ demee Xadafi dalal leen ba jumaa jot ndekete fa leen Xadafi yóbbu pour ñu war fa jullee jumaa Xadafi dafa def erreur yu bare bare bare fam leen yóbbu pour ñu war fa jullee juma ndekete ju juma ndànd foy foy la parce que nit ñaa bari xajuñ mu yóbbu leen ca àll ba di frontière Libi ak euh, càdd def fa ay xayma xaymaam yooyu pour ñu julli fa juma sëñ Mansour ci xam-xam bi ñëw ba yegsi ne ñoom Cerno Muntaga fii du juma fii ndànd foy foy la di du jàkka du jumaa ku fi julli juma amoo juma <laughs> loolu ku ko ñemee ci mu buur mu ne waaye nañ leen ormal ñu ormal julleen door ak ñoom ñu ñibbi mu ne ñoom Cerno Muntaga ñun ñëpp nañ baamu suñ tisbaar ndax ku fa julli amoo juma ndax loolu du juma jàkka la du jàkk ndànd foy foy la ndànd foy fay kenn du ci julli juma loolu ci charte yi la bokk loolu moom moo ko feeñal ci xam-xamam te ñépp nga ne woon pat fa tabaarakallaahu ba discours yi jotee sëriñ Abdou mag ñi ñu àndaloon ñépp ne ko dëgg-dëgg nag yow yaa ñu doy pour nga bind discours xitaab jàng ko ñun ñépp jox nañ la suñ kàddu mu jël xalimaam def xasidaam yu kowe yooyu de jàng ko ci kanamu xadafi xadafi kim njëkk a dendal la laaj ne ko kii ban université la génnee mu ne ko université Babacar Sy ca Tiwaawoon bi discours bi daanee Xadafi woo ko te moom ne ko dama ne ci ay jafe-jafe sa xasida bi du xasida kese dama ne ci ay jafe-jafe yu tar Amérique ñu ngi ma sakkatal embargo ma Occidentaux yi bàyyiwuñ ma embargo yooyu laa bëgg ñu lever ko ndax ma mën a liggéey sëñ Mansour ne ñaanuma ci sax mu ne dama ne sëñ Babacar dégg nga ko jeex na dafa ñibbisi si tuuti ñu lever embargo yi lalal ko tapis rouge ca France <laughs> mu ne du fanaan pale ndax reewaande moom it Kadhafi ne nañ ko defal xayma sa Champs-Élysées <laughs> fa tubaab yi gën a bañ mu dem def lu fa xaymaam yu rëy yooyu pala def xaymaam bi di resevoir ay nitam signé ak ñoom protocole d'accord yu kenn xamoon nu mu toll ah kon moom ay mbiram génn na sax Afrique génn na Afrique ñaata nit la sëñ Mansour defar ca Côte d'Ivoire Gabon Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry ba ci Casamance bii eh, jumaa jañ fa tëjoon ñaata at daaw daf fan 40 ans lañ tëj jumaa ji ndax lan soose yi duñ ko jiite joolaa yi duñ ko jiite njaa kii duñ ko jiite waaso yooyu 40 ans jumaa ji tëju sëñ Mansour a dem ubbi ko ne diw nekkal ilimaan ji kenn tegu ci baat am na wala mu daw ñépp ba léegi jumaa ji ñu ngi fay julli loolu rek bu ko ko yàlla fay àddina bi yëpp xaj nañ ci jumaa juñ tëj 40 ans yàlla jaarale ko ci moom mu ubbi jumaa ji sëñ Mansour radiyallahu anhu yàlla dogal bim ñibbisee lu jiitu lii nag lii may wax ci diggante ma Kaddafi 98 la te yéen ñëpp xam ngeen ne 97 la Cheikh El Hadj Abdoul Aziz génn àddina waaw kañ foofu laay dugg nag 97 bésu àllarba la Cheikh El Hadj Abdoul yónni doomam bu ñuy wax yaa Sofi ci sëriñ Cheikh bu Serigne Mansour borom daara yi. mooy taawu sëriñ Mansour tey moo toog ci ba palaasu baayam la tax mu yónni yaa sofi mag ñi luñ def noon la yaa sofi Alaaji Abdou sa ko jur waaye yaa sofi mooy jur soxnaay sëriñ Cheikh ak Maodo Touré bu sëñ Haadi mooy doon denc yaa sofi seen doom lañ may Serigne Cheikh moom lay denc bu Serigne Mansour di taawu Serigne Mansour moo tax yaa alaaji Abdou Aziz jaar ca buntu ba ne yaa Sofi demal nga ne sëriñ Cheikh mu wax pàppaam ne ko na ma wuyu si fii ci pom bi gël tàppe boobu fekk sëriñ Mansour a ngi sibiru ba mënta jóg passation de pouvoir mhm. passation de service wala de pouvoir bii du service de pouvoir la pouvoir bi gën a diis ci pouvoir yi sax xam nga pouvoiru état pouvoiru yàlla ko gën a diis fopp boobu la doon yenu ji nag mbooleem xilaafa Cheikh Seydi Ahmada Tijaani gannaaw Seydul Xaaji Malik moom lañ yëg ko am xilaafa buñ bind sëñ kër si baayam amoon na ko Seydi Xaaji Malik maamam amoon na ko mooy ba muy laaj Cheikh Sukayri ca xasidaam ba ne ko dama bëgg nga defal ma xalwa laajal ma Cheikh Sidi Ahmad yi ndax sama doom yi mën nañu nekk sama xalifa loolu waxoon naa ko fi yéen ñëpp dégg ngeen ko kon moom mbind la woon Seydi Hadj Malick moo tax Serigne Mansour del siwaat jaar ca tànku maamam te wax nañ ne xilaafa yépp xilaafa mbind ci gën a dëgër moo ci gën a dëgër àllarba la ko sëñ Abdou woolu boobu mu ngi tawat sëñ Cheikh wax ko ko mu ne ah xanaa ma jéem waaye sonn naa ndax fan yépp sama yaram neexul oto ba mu jël paan na ay yoon ci yoon wi ndax oto bu bees la batterie ba palaa lu ne daj na ko ci yoon bi pour yegsi bi mu ñëwee alxemes du alxames la de alxemes la dem waaw kañ dafa def ko ne balaa wax ko ne ko balaa muy ñëw na jaar ci raw du sëriñ Babacar si ziyaareel ma baayam bu fa jógee na jaar ci raw du maamam Seydil xaaju Malick ziyaareel ma ko te ñëw bi mu jaaree du sëñ Babacar si jaar rawdu Seydil Hadji Malick bay génn taseeg sëriñ bay Abdou sëñ Baye Abdou ne ko papa foo jëm xam nga lu tax mu ne ko papa baayam alaaji Mansour lañ ko tuddee moo tax mu ne ko papa waaye du papa magam la ñoom kuñ tuddee sa baay rek pàppa lañ lay wax moom it papaam lañ ko tuddee sëñ Babacar Si ku ne ne sa moroom papa mu ne ko pàppa foo jógee mu ne ko papa foo jëm mu ne ko man de sa papa woolu mu ne ko may it moo ma yónni woon gis nga ba may door a yegg si yow ngay door a dem ñu dajee ñoom ñaar sëñ Mansour ñëw fekk Alaaji Abdou Aziz ci pom bi gël tàppe sëñ Mansour maam sëriñ maam Ousmane si bu Cheikhul Hadj Abdou Aziz sëriñ Pape Makhtar Kebe ak Lam Tooro si ak Cheikhul Hadj Abdou Aziz muy juróom yàllaa leen juróom benneel ci néeg ba dëgg la wala du dëgg daaw la ak góor gi Moustapha Diop waaw rahmatullah alayhim sëriñ Mansour borom daara ji sëriñ Pape Makhtar Kebe sëriñ Mame Ousmane Sy sëriñ Alxaaji Moustapha Diop ah, ak sëriñ Cheikh Taawam ak Lam Tooro si sëriñ Lam ak Cheikh Alxaaji Abdoul Aziz ñii juróom-ñaar ci biir néeg bi biñ ñëwee sëñ Mansour nuyoo ne ko yegsi na mu jàmmasanteeg moom daldi ne Pape Makhtar Kébé génneel li ma bindoon du noonu Pape Makhtar bul leen wéy nag Pape Makhtar génne testament bi te dégg ngeen lu ne nit ñi wax ko ci i fii ngeen nekk fii laa nekk dégg ngeen ko naan góor gi bindu kook alaaj du bindu kook nangam nangam dañ koo fomante dara du ci dëgg alaaj Abdu doo ko bind dem leen laaj ñii di dund ñii de sëñ Moustapha Diop ak Alaaji Abdou Aziz ci génn àddina su ma juumoon ñi ci des ñëpp a ngi dund dem leen laaj Lamtooro si moo ci gën a ak sëriñ Maam Ousmane Pape Makhtar si Kébé sax il est yàlla def Pape Makhtar jàng ko ba mu jeex mooy xasida bi bushraakumul mansuuru qad wulliitumul sirral xilaafati sirral xilaafati waxul xilaafa de sirral xilaafati moo tax mu daan eh sirral xilaafati lañ ma jox <laughs> ak kay dëgg ba xasida bi jeex mu xaj ci sëñ Mansour ne ko ñëwal mu ñëw mu am lu mu déyanteeg moom lu yàgg siggi sëñ Mansour siggi mu ne ko xanaa bég nga sëñ Mansour ne ko ah bég kañ mënta am li nga ma wax léegi kañ mbégte mënu fa am ndax boobu góor gi tàggu na ko ne damay dem yëf yaa ngi ci sa loxo loolu la ko sëñ Abdou wax damay dem bés bi muy dem sax wax na ko ko sëñ Mansour a ko waxoon lépp lu doon pouvoiru Cheikh Sidi Ahmad Tidiane ak rasulullahi mu teg ko ci loxo moo doon xalifatullahi fil ard di xalifatu Cheikh Sidi Ahmad Tidiane di xalifatu rasulullahi di xutbul fardul jaami boo boo ne xalifa Seydi Hadji Malick na Tijaan yi dugg na bu Seydi Hadji Malick dugg na bu Sëriñ Babacar Si dugg na boo ne xutbul fardul jaami incarné na lépp nag boole ci kaw ak suuf cent vingt-quatre mille monde yi yàlla bind lépp balaa ci dara di dox xutbu bee koy doxal kaana sëriñ Mansour moo doon moom te yàqalu ko dara ci nga yégée nag piir ne moo yenu yem bi ndax duñ duñ jëm daan def day ñëw fii golf ba yaa mu ne déedéet déedéet fële laa jëm nañ dem almadi nañ dem almadi nga dem almadi deux minit mu ne dañ dem Pikine boobu xam nga lu tax mbedd mu mu jaar koo gis sa yaram aram na safara te mënu ko toogaale

moo tax sët yi ko yenu ay at jàmbaar lañ de Cerno Bachir wax na ko fii ci sama gàmmoo gi ngeen dégg am na ñoo xam ne bu ñuy toog dee ndax diisaay duñ ko àttan moom 16 am na ko ci 16 ans yooyu moom la toog waaye balaa balaa balaa muy toog fekk na mu nekk ci passation loolu dina am 10 ans mu door a toog muy vingt 26 ans xutbu boo gis mu remplacer moroomu xutbam passation de pouvoir bi wala de service bi dana dem 10 ans Cerno Yaxya yi moo ma nettali ci gémmiñam nee na 1947 bi muy aji màkka nettali naa leen ko fii la ko benn picc wax picc ci géej gi ne ko boo demee nga ne Abdul Aziz mooy xalifa Seydi Hadj Malick mooy xalifa Cheikhuna Tidiane te boobu sëñ Babacar a ngi dund 47 nee na ma ñëw laajte ko ñu ne ma mu nga jag saaw ma fekk ko jag saaw ñu tëju ma ne ko ah nee ñu yaay xilaafa yaa yaay xalifa Cheikh mu ne nii rek ngeen di def bay tas kër jàmbur yi naka la sëñ Babacar si di dundee may nekk xilaafa may nekk xalifaam nee na Cerno Yaxya ne ko xam nga xam na duma ci baamu picc mi ma ko wax ba ma koy wax dégg nga ko dégg naa ko mu ne alaaj Abdu xacc ma ma moom la ñuy wax xilaafatul haaruniya <laughs> leer na nañ mu ne alaaj Abdu xacc ma moom la ñuy wax xilaafatul haaruniya waaye bu ko kenn yëg dix ans lay am nga door a remplacer nit ki kon sëñ Mansour dix ans yi jiitu ak vingt seize ans yi muy vingt six ans la ci def kii mooy sëriñ Mansour bari na ko mas a jaaxle ci réew mi tey kilifa ñu indi ci moom ay kilifa laa ay ponkal ay bopp dof moom nii rek tër mbéj wala dóor ci mbopp rek moom du bind saafara du joxe téere ba ñëwee dof muy jaddi jaddi kay kay kay indi indi xàcc tal bàyyi leen ko bàyyi leen ko buñ lay bàyyi nga ne ko waaw si maa ngi lay ziyaare nu yóbbu leen ah maa ngi ñëw fii won la nag ci bëgg yàllam ba bi muy dem màkka moom ci boppam lu jiitu muy yóbbu màkk dafa ñëw ci Cerno Muntaga Ahmad ne ko dama la doon ñaan ndigal dama bëgg a dem Makka mu ne ko jot na de ndax am nga ko te mën nga ko mu ne ko waaye dama bëggoon ànd ak Serigne Cheikh Serigne Mansour def na lu ne pour ànd ak Serigne Cheikh ba mujj gi mu ne Baye Omar Samb Baye Omar moo ma nettali loolu mu ne Baye Omar Samb neel sëriñ bi maa ngi dem waaye maa ngi koy yéenewaale ndax bëgguma woon a dem te ànduñu waaye comme am nga ngant maa ngi dem waaye maa ngi koy yéenewaale mu ñëw ne Thierno Mountaga dama bëgg nga garanti ma ne dinaa dem delsi loo ciy déggee sëñ Mansour jamono boobu mooy kilifa sëriñ Thierno Mountaga Ahmad donte surtout Cheikh Oumar la xanaa xamoo ne hmm, am na loo xam ne kenn du ci yegg Thierno Mountaga billaahi bu bu du toon bu du toon Alaaji Abdul Aziz mooy remplacer Alaaji Abdul Aziz xam nga li ma lay xam naa ko fekk na ma ba tàyyi ci saalu sëñ Abdu te boobu am na lu may lu ma xam man ci li muy dox dalaa ñëw ci ruq ba lay toog fële rek di xool góor gi comme mbonaat muy namp góor gee jékki-jékki rek ne ana Cerno Muntaga ñu ne ko mu nga ne toog mu ne wax leen ko ne li muy def baaxut moom surtout Cheikh Umar la bu ñëwee rek na ñëw ci sama wet Cerno ne ko baax na dal di jël yet wi rek dem 15 minutes nga gisaat ko mu ñëw toog te day dem këram de du fa am ndax 15 minutes duggaat otoom ñëwaat bu ñëwee moom na xool rek allah jabtu boobu am na lu muy jël ci moom Thierno Mountaga bii ku garaaw la Thierno Mountaga Ahmad ku doy waar la Thierno ne ko garanti naa la garanti boobu mu garanti sëñ Mansour dem ba sëñ Mansour di ñëw fekk na mu génn àddina moom foofu duñ fa dugg waaye am na sabab mhm. am na sabab foofu duñ fa dugg damay bañ nit ñi gisee ko neneen waaye xam naa ci lëpp na ndax yépp ci wàllu yàlla la rek sëriñ Mansour aj gu doy waar la aj yéen ñépp gis ngeen ko li ngeen mën a gis ci vidéo yi gis ngeen ko la ko fa buur bi recevoir ak lam ko fa taral yépp umpul leen ndax jamono média ci lañ nekk waaye lépp mu delloowaat ko yàlla bim ñibbisee commencé di yóbbu nit ñi mag cinq billets yiñ ko njëkk a may Assane deux moo ko ko may mu séddale ko kër gi duma tudd nag ñi mu ko séddale ndax damay bañ ñu gisee ko nenn waaye génnul kër Seydi Hadji Malick ñoom la ko séddale at bi ci topp mu am fukki billet ba bi ma ci gën a impressionné nag am na boo xam ne cent 313 personne la yóbbu muy adadu eh, eh, ahlul cent 313 personnes xam nga loolu avion la ba mu fees boole ci ku mës a yóbbu Makka mu daf lay laaj looy dépensoo sa kër par jour nga wax ko mu regle xaalis bi jox la ne la dépense yi dem ak dikk tegal la ci boo loo xam ne bu xale yi feebaree boo ñibbisee mu yeewal la nag jox la loo nganalee ñépp boo ñibbisee mu jox la nag yeew yeewal la nag jox la loo nganalee ah yóbbu màkka bi neex na de gaa yi ngi yóbbuwaati màkka waaye ñi yegg fii bariwut de at boobu nag moo ma gën a impressionné 313 personnes ak yeneen ñim yóbbu màkk rek kenn xamul ñu toll xam nga benn at nga yóbbu 313 te at yi ca des yëpp yóbbuwaat na yii cent personnes lay yóbbu yii 90 yii 70 moom lim yu lim yu resté la daan jël ndax bëgg yàlla tur yàlla yi la daan xool lim bi mu ne lii laay yóbbu ren fa tabaarakallaahu loolu rek ku ko ci roy surux de. ba mu demee ba tey gisagoo ku ko def de <laughs> gars yi kañ mën nañu yóbbu ñaar ak ñett <laughs> waaye waaye 90 ak 70 ak 313 313 moom ci moom dong laa ko mës a déggee ci Sénégal wax dëgg yàlla dégg ak taguma ko ba fenn nag li gars yi di mën a toppandoo yëpp gisaguma ko ko ci toppandoo waxuma yow 313 yóbbu leen rek yem ca waaye kenn ku ne nga laaj ko looy def depense sa kër par jour xam nga nit ñi bokkuñ lu ñuy def dépense te am na ñoo xam ne wóor na ma ni ñu Sidi Kunta lañ mel ragaluñ yàlla 500 la ñuy joxe ne ko 2000 lay joxe ah waaw pour jégewal ci sa poche rek fa tabaarakallah daray diine Sëriñ Mansour ma su ko foye moo tax yàlla jox ko cër bi mu ko jox fa tabaarakallahu ba 2012 fa tabaarakallahu feebar bi ko njëkk a dab su ma juumut bésu àllarba mardi du noonu ñu yóbbu ko hôpital principal bi 21 novembre évacué ko Paris li gën a yéeme li muy feebar feebar xadara juma fu mu mos a jotee mu ne Habib waxtu wi jot na indil ma sama xeer bi ak sama kurus def xadaraam ba àjjuma bi jiitu nga xam ne samedi la génn àjju àddina àjjuma boobu def na xadara jumaam sëriñ Habib doomam samedi mu ñëw seetsi ko fekk mu tane bi ci boppam moo ko woo mu laaj ko mu ne ko góor gi alhamdulilah fi ne nii moom tout ça se passe bien lépp baax na lépp a ngi dox gisuñ ci moom dara sëñ Habib ne waaw léegi bàyyi leen ma yóbbu ko kër ga ñu noppalu médecin bi ne ko déedéet ngeen bàyyi ko fii mu noppalu moo gën ngeen ko yóbbu hôtelam ak nit ñi mën nañ ko fay sonnal ak yooyu mu ne ko waaw mais kon bu subaa nga may nit ñu yóbbu ko mu noppalu hôtel ma mu ne waaw sëñ Habib génn di toppatoo ji oto limousine moom moom la daan jëlal bàyyam sëñ Habib mii dafa xam papaam mosul bëgg lu tuuti ci pàppam te ku bëgg sa baay te am ko noonu nga war a mel sëñ Habib bii mosul bëgg lu tuuti ci pàppam mosul bëgg lu fere su sax papam dem utali ko dem di ko utali limousine bu ko jël si hôpital pour yóbbu ko hôtel sëñ Habib dafa génn rek góor gi dog ndekete ñu ngi koy wër ci téléphone mënuñ ko jot moom mu ngay uti limousine bu ko yóbboo hôtel fekk góor gi dem na kii mooy Serigne Mansour daan na wax ne xawma kan de mu ne waaye lii Serigne Babacar si am moom kenn ëppalewu ci te loolu dëgg la ku fonkoon baayam la mosul génn Tiwaawoon di ñëw ndakaar lu dul jaar na raw du sëñ Babacar si ziyaare ko jaar raw rawdu Seydi Hadji Malick ziyaare ko door a ñëw dakaar suy dugg Tiwaawoon it danañ jaar raw rawdu Seydi Hadji malik ziyaar ko jaar du papam ziyaar ko door a dem këram mosul tukki te defu ko ñaare sax ku ko bëggaan gis da ngay bàyyi ba fajar bu jullee fajar ba noppi ñëw di ziyaare papam nga napp ko foofu parce que xam nañ ne heure boobu day julli si fajar te bu paree buñ paree ci wasifa bi day ñëw ziyaare papam bu ziyaare papam nag fa lay profito ñii nga gis mu di leen ñaanal ñii mu di leen jox dépense quotidienne bi fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin yàlla def nag ba 2012 boobu muy samedi mu génn àddina ñu téléphoné président de la république Macky Sall wax ko ko mu jël matuwaay yee ca war yépp na ba taxawu fa sax ñu indi ko ci dimanche du noonu lu jiitu loolu Cerno Bachiru Muntaga Daha Cheikhu Umar moo ma nettali ci gémmiñam mu ne ma dama toog fii Chérif Ibrahima ba minuit ma digg oto buy ay oto yuy gaare ñu ne ma sëriñ Mansour mooy moo lay seet ma ne Serigne Mansour man ñu ne bu Serigne Babacar mu ne moom waxtu bi mu ñëw moom guddi na léegi man teraanga bu ma koy defal waxtu bi moom mu ngay xalaat teraanga bu mu koy defal ne sëñ Mansour ñëw toog ci salle bi ñépp ñëw toog ñépp toog ci suuf ñoom ñaar ñu toog ci kaw nee na mu ne ma maa nga jëm ñoom rek waaye dama fi jaar pour jox la benn yóbbante xam nga rek sëñ Mansour nee mu ne ko Basiru yow laay wax mu ne ko at sàngam dinaa dee yaa may julle mu ne ko loolu rek a tax ma jaar fi ku weddi li may wax demal nga laaj Cerno Bachir Thierno Bachir nee na maa ngi tiita tiita tiita tiit ma ne ko sëriñ bi loolu kenn du ko wax loolu kenn du ko wax yow tam man maa ak yow xamuma koy njëkk a dem mu ne ko noppil yaa man maa lay njëkk a dem yaa may jullee maa la ko wax maa lay njëkk a dem nee na nekk ci xaal nee na ma ne ko waa baax na baal ma baal ma baal mu ne ko li ma la wax moo am yaa may jullee dégg nga yaa may jullee de daal di ne ko maa ngay dem ñoom ne nag ma fekk ñoom rek <laughs> moo lay wan ne ci daara feesul bëtam lu dul yàlla Thierno Bachir ne ba bàyyi ba bër set suba teel ma fekk ko ñoom rek nee na mu ne ma doyewuma la dara dama xam ne bi li ma la waxoon bi ma la koy wax rek jaaxle nga waaye li ma la wax moo am de yaa may jullee te nang ci taxaw nag dégg nga loolu rek laa la doon doyee bismillah taal ñaanal ñu ma bàyyi la nga dem Thierno ne ma ma ñëw rek jaaxle mu ne ah man Serigne Mansour am na ay mbokk am na ay rakk ñii kilifa ci réew mii duñ jeex mu ne maa koy jullee ah ñu bàyyi ci loxo yàlla Thierno Bachir nee na ñuy dem mu ne fi ma ko waxee ak fi mu gaañoo man mi mu ko nettali de su ma bañul fen yaakaar naa nee na ma ëpp na ñaari at nee na ba bés bi Serigne Mansour di gaañoo moom Thierno Bachir nee na ma bés bi muy gaañoo moo ma nettali kii yaa ngi toog Mansour Guèye bi yaa ngi toog mu ne bés bi Thierno Bachir di gaa eh, di Thierno mu eh, ne sëñ Mansour di gaañu Thierno Bachir nee na bés boobu dama feebar feebar ba médecin yi ay perfusion lañ ma defal ci këram lañ ko fekk dafa eh, Louga defal ko ay perfusion nee na xam nga xale yi teeyuñu mu ne mu am ku ñëw rek ne ma. Cerno ma ne ko mu ne ma yëg nga ne Serigne Mansour génn naa àddina rek ma buddi mu ne mu ne dama tiit ba buddi perfusion yi sànni mu ne deret ji sànni ñépp yooxu Cerno Bachir moo may ne mu ne dama tiit ba jël yépp ma ma sànni ko jóg toog mu ne médecin bi ñépp ñépp yooxu deret ji sànni nee na ñu ñëw defaraat yépp yépp ne ma góor gi kiyal mu ne xamatuma nag fu ma nekk mu ne ba perfusion bi jeex ma jóg toog ma ne wool leen ma Cheikh Umar Cerno Cheikh doomam ñëw mu ne ko damay dem Tiwaawan ñu ne ko baaba yow foo jëm yow nii nga mel nii nga ne da ngay mu ne dee mooy tax dew ma Tiwaawan waaye damay dem de damay dem de Sëriñ Mansour génn naa dina damay dem Tiwaawan bu subaa daal damay dem ba muy ñëw Cerno Bachir ma nettali ci gémmiñam nee na ma boobu de ay dara yaakaaruma woon dugg ndax mbooloo mu ne sëriñ Mbay Mansour bii tey di xalifa mu ne moom laa séen mu takk mbubbam di xal nit ñi oto bi di dugg mu ne muy arrière moom sëriñ Mbay Mansour di xàll ba oto bi dugg nee ne mu ne boobu maa ngi feebar dañ ma tiye mu ne ma ah waaye mu ne ma sëriñ Mansour yàlla may na ko mu ne ma bi may bi may toog ci oto bi boobu aw ma kàttan yëkkati sama bopp mu ne waaye bi ma ñëwee ba oto bi gaare ba ma séen sëñ Abdu al mu ne maa ngi bëgg a wàcc pour nuyu ji ko aw ma kàttanu wàcc ndax mënuma wàcc nee na waaye biñ ubbee bunti oto bi ba sëñ séen ma rek waaw jógee ca saal ba rek waaxu di ñëw mu ne foofu la ma yàlla roof benn kàttan ma ne bëreet Cerno Bachir moo may nettali de mu ne bi ma nee bëreet bi ma nee nikk sëñ Abdu mu ne sëñ Abdu daf ma ne kañ nga am doole mu ne sëñ Abdou Daf ma ne ah Thierno Bachir kañ nga njaxle fee nii kañ nga am doole mu ne xaw ma doole jooju fu ma ko yàlla roofee mu ne yëgatuma dara ci saa si moom Thierno Bachir mu ne daara yëgatuma mu ne fi ma toog nag ñëpp fekk si ma fa moo lay ne moo yor moo boobu moo ko war a julle mu ne si sëñ du ñëw jël siis toog ñépp ñëw fekk ko foofu surtout cheikh yeeg ñépp nee na fi ma toog nag maa ngi ne <laughs> tey lay xam nag sëñ Mansour ndax seetu Cheikh Tidiane yii ñoo yi gën a yeey ci jullee sëriñ Mansour ci man sëriñ Abdoo gi nii te sëriñ Cheikh xaw ma ko mu jox ndigal te al aqrabu awla mu ne ma jékki-jékki rek biñ indee sëriñ bi ba teg mu ne ma jékki-jékki sëñ Abdou ne sëriñ Mansour sëriñ Cerno eh, Bachirum waaw ah, mu ne ko lii may wax nag bu ko delloo kër gi yëpp ànd nañ ci ku Seydi Hadji Malick jur ànd na ci surtout cheikh yii nag ñooy suñ sëriñ xaqiqatan ñooy suñ sëriñ waaye ñaan nañ leen ñun yéenay suñ sëriñ yéen setu cheikh Omar yi yéenay suñ sëriñ yow mii nag lañ tànn yaa ñu doy pour nga jullee Cerno <laughs> pour nga jullee sëriñ Mansour nee na teguma ci baat ma xam ne la ma waxoon ca Louga moo am mu ne ma jóg ne bismillah defar leen sax mu ne kàttan bi ma yàlla jox bi ma jullee ko xaw ma ko mu ne bi ma ko jullee ba noppi ba dugg ci bi mu ne yàlla delloowaat ma fa ma ne woon <laughs> rocc prise bi mu ne yàlla delloowaat ma fa ma gën a feebar sax ma feebaree woon mu ne waaye yàlla defal ci barkeem nag ci laa wéree kii mooy Seydi Mouhamadul Mansour kii mooy doomu Astu Sekk ak Seydi Aboubacar Si kii mooy xalifatullaahi fil ard kii mooy xalifatu shaxsit boo nee xalifatullaahi fil ard nag gaa yi moomale ko keneen bari nañ inni jaaciluka fil ardi xalifatan ay xalifa xalifa xalifatullaahi ñoo am waaye xalifatul xulafa nag woo Seydi Mouhamadul Mansour mooy xalifatul xulafa moom la ko yàlla dogaloon ci moom moo donn Maodo donn Seydi Aboubacar si doon nu Cheikhul Xaaji Abdul Aziz si doon nu Cheikh Sidi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu uuf njabootul yàlla gi ci kaw suuf ba kenn jooyut kii mooy Seydi Mouhamadul Mansour boole ñépp téye njàmburam téye làmmiñam baax lewet mën a sonn ci nit am yaakaar ci doomu yàlla fi yàlla yépp kum gis yaakaar na ne yaa ko gën comme dégg ne am nga xam-xam mën nga ñaan mu ne la ñaanal ma te raw ñëpp gën a nangu ñaan ñëpp gën a yegg ci yàlla ñëpp gën a sës ci yàlla ñëpp waaye gën a wàcc ñëpp gën a woyof ñëpp gën a baax ñëpp gën a lewet ñëpp gën a nooy ñëpp fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin yàlla nañu yàlla taas ci barkeem yàlla bu ñu rëcc mukk lu luñ ko doon xame te incha allah duñ ko rëcc mukk